wax ne barab bi moom moo ko moo ko moo ko moo ko takkoon moo takkoon néeg bi moom la borom Tuubaa woon ba mu dikk ba mu mu sañcee foofu fi Tuubaa ñu fu ñuy wax sëñ Saaliwu yàlla dogalee bi mu dox ba ñëw fii nag ñu ko goree ba mu set mu woo sëñ Daaru sëñ Njaay ne ko damaa bëgg nga takkal ma néeg bi mu daal koy takkal néeg bi bi mu ko takkalee néeg ba noppi mu ne ko dama bëgg ñu làkkal ma làkkal ma làkk làkk ngeer boo xam ni képp ku wax ne waroo gëlëm rek mënoo doo xam lu ne ci biir kër gi kon mu daal koy mu daal di koy mu euh, takkal ko nii bi bi mu takkee nii ba noppi mu daal koy làkkal ko làkkal ko làkk ba sax ña doon làkk bàyyi moo sàll moom bokk na ca ñi ñi jiitu ba fekk booba wax na ne fukki nit ñaar fukki nit ak ñett ak moom ñoom ñoo doon làkk làkk bi. ñu ko làkkee ba noppee nag sëñ Tuubaa doog woo sëñ Daaru nag ne ko duggal ma ci biir. Euh, sancal ma ko sëñ tubaa daal sëñ Daaru sëñ Daaru daal koy dugg ci biir sancal ko ko mhm. ba def ci weer ak fukki fan ba mu génnee sëñ Touba euh, laaj ko mu wax ko ci mu xam sëñ tubaa daal ci dugal boppam mu ci dugalee boppam it euh, daal di wax sëñ Daaru ne ko na nga toll ci penku waxtu jotee boo li nu ànd julli ba loolu wax nañ ne loolu siiw na ba wax nañ ne loolu moom sëñ Daaru Sën Njaay Um, jiiteen fi jiit jiiteen fi julli uh, lu war a mat weer mu tegal um, fii ci fii ci ci barab bii mm-hmm. bu ko defee nag sëñ Tuubaa moom daal di nekkal ci boppam nag nekk ci nekk ci nekk ba def ci ba xalwatum jeex mu génn ba mu génnee uh, daal di koy sanc sanc ko sanc sanc ko nag bu mu sancee nag daal di fi nekk nag am na fi yeneen i kër Euh, ndax foofu ñu tuddee Touba foofu la tuddee foofu la kër Sëñ Saaliwu foofu la tuddee Touba waaye nag def woon benn néeg boo xam ni dafa nekkoon dëkkoon fa euh, kër Sëñ Sooyibu kër Sëñ Sooyibu moom it da Rahmaan la ko tuddee woon waaye moom it def fa benn néeg boo xam ne dañu ne néeg bii fi la sëñ bi dëkkoon wala boo xamuñu ko bokk waaw sëñ Basiru naka noonu yàlla dogal na fii daal mooy néeg bi mu xam ne fi la nekkoon ba def fi euh, man juróom-ñaari at juróom-ñaari at yooyu nag. fekk jàkka ji moom fi la doon fi doon demal mooy jàkkaam moom defoon jàkkaam moo ko defaroon maanaam di fi julli julli juróom yi foofu la ko daan jullee ba yàlla dogal nag maanaam euh, ba mu fi amee ba mu amee juróom-ñaari at ba dugg ci weeru koor weeru koor wi nag ba ba ca ba ca ba mu dem ba ca fukk fan yaa juróom-ñaar wala lu ko ëpp maanaam boobu daal def lixtikaaf la doon def lixtikaaf ci booba ci biir ci catu koor gi maanaam ba mu dem lixtikaaf nag yàlla def yonent sallallahu alayhi foofu la ko fee foofu la ko ñu ànd ak ahlu badra ak saaba yi bi mu leen gisee nag mu ne dafa bëgg a bokk ci àndandoo yooya ba ko waxee yontu bi nag mu ne ko nag ñii ànd ak man de dañoo dañoo dañoo fa fa ñu jaar maanaam ba ba ba ba ànd ak nun loola day day lu jafe te te te te te te mboolem eh, ñi ñu feeñu ku ñu feeñu ku ñu feeñu ku ne rek da nga bëgg da ci bëgg a bokk ànd ci waaye lay tax nga ànd ci ku ñu ko ci wan ku ñu ko ci wan wala ñu ku ñu ko ci wan rek doo doo ci mën a doo ci dugg tey man du man la mën a dimbali ndax boo ci dugg du ma la mën a dimbali ndax bu ma la dimbalee dañ may jam yontu bi nag daal ko xamal ne ko nag ñun daal ba ma dama laa jëngaa ñëw ma takk leen ma takkal la garaadu xol bu samaan ma daan na ko yow sax say at matagul euh, ñeent fukki at soo say at manqué ni yenti yenti weer waaye waaye dama la koy dama la koy xëccal tey tey daal di lay tegal garaat xutub xutbu samaan sëñ bi nag euh, sant ko lool gërëm ko waaye na ko nag man daal li ma bëgg daal mooy daal ànd ànd ak yow euh, ak lu ma ko mën a lu nu ko mën a may rek moom moom ko waxee ba yontu bi nag euh, daal di ko wax sëñ bi sëñ bi daal di wax yontu bi ne ko ak lu ñu ko man a lu ñu ko mën a may daal bu ko suñu bakkan atténuer suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ jom dana ko dékku yontu bi lim ko lima lima lim ba àggale mu ne ko nag bu ko sans sans ru atténué rek sans dana ko dékku mu ne ko kon kon ni nga jaayantu woon may nañ la ko bañ ko mayee ba noppi nag daal ne ko nag dëkk bi moom da nga koy génn ndax dëkk bi moom eh, dañ ko aar dañ la ko aaral kaaraange loo xëy nii ba ba adduna tukki aw ay du la fekk loolu moo waral nag sëñ sëñ sëñ Touba daal di fi daal di fi jógee nag daal di wuti ci dem Mbàkke Bari daal di fa sanc ba mu fa sancee ba muy dem nag wax na ne wax na ne waa wax na mbooloo mi bu ñu dajee bu ñu dajee ak waa dëkk bi ak ñu war a àndal ne leen nag sama dëkk bi di Touba day yaar laa fi nekke woon mu ne yaar yooyu nag képp ku ko fi nekkee Euh, da nga am tey da nga am ëllëg waaye képp ku ko kooj euh, nekk fi neneen lu dul noonee euh, kon lool lool ci loolu ci loolu naxari loolu la kooj ko moo moo la ko teg daan na yaar yooyu nag mooy bëgg yàlla bëgg yentu bi rek loolu ba lu fi nekkee woon waaw ba lool jàll ba mu demee Mbàkke bari nag ma la fa fa fa la nekk nag ba defa yent weer sawal sol xiidati sol ijati mu arab ba dugg sawar weeru safar nag daan na jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar woowu xam ne ci lay war a demee ca tukki ba waxtu timis boo ne bëgg fanaan foofa ba ba bu ñu xëyee xëy xëy xëy yàlla si dellu ma naan yàlla da ko def nag euh, pël bi pël boobu yox dem ma nga di nag dégg dégg ñu yëngu mu dikk daal di topp mu dikk di leen nuyu léegi booba euh, booba sek asa sekara la ak riic la yàlla def nag mu daal di làmb tànk la li day fetal ay daal di ay fetal la mm. daal bi mu waxee loolu nag euh, daal di koy wax mbaaxaan mbaaxan Diop daal di ko téléphoné borom dara ne ko sëñ baa ngi dajale ay gànnaay waaw bi leen woo bi leen woo nag barke walo ak mañ ak ca Ganjool ak bursin ko mëndoo fin moomu ak mbaaxaan bi leen laajee nag maanaam ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne euh, bursin ko mëndoo fin moom bi ko laajee dafa ne ñu laajee ba agsi ci moom dafa ne daal dafa ne li mbaaxaan wax moom du dëgg ke ñeneen ñi ñu wax laaj nag dafa ku ci bu ñu la da ngay wax ah, ko yëgunu ko daal yëgunu ko moom dafa ko garanti ci mantoom ak mhm. moo waral nag mhm. bi nga xëy nii ñu yebal fi baaxaan mhm. booba gaal gi nga xëy nii ca la amoon lu mu ca euh, def defoon moom mi ngi ci mi mi ngi ci biir néeg bi waaw dañoo wax ne ak gaal gaal googu boobu daru mën nan la gaal ga nekkoon yàlla dem na ko ci juróom-benn weer yooyu nag euh, lañ fi lañ ko fi daal jëli nag ne daal def rek booba teel bi bëgg gi ko bëgg ak namm gi ko namm ak euh, ak mbégte ñi am ci moom moo tax maanaam ba tubaab yi yéene yéene añaane ko ne daal dañ ko fi jëlee yóbbu ko gànnaar loola moo waral yoonu gànnaar yóbbu ko gànnaar moo am fa juróomi at ñu daal ku fa jëli yóbbu ko yóbbu xale jërëri ya ak sarsaara ak tonto moxtin ak xomaak ak ak sarsaar foofu diggante yooyu loon dox la doon dem fenn fu ne mu defa dem gannaaw ñu nag bi bi mu ànd ak Cheikh Sidiya Baba ba ba mu fa tàggu Cheikh Sidiya Baba nag gannaaw gi ne la ko tubaab yi jëlee yóbbu ko jolof ba mu jolof yenti weer la fa yenti weer yenti yenti at la fa am ba mu fa jógee nag dafa daal di jëm daal di daal di aw nee daal di aw ca kaw aw mbaa dem njëriñam kër kër sëñ daam abdourahmane lu fanaan ba ci ba mu xëyee nag daal dem njëriñam mm. ba dem njëriñam fa ba ne fa ba diiru fukki at ak juróom loolu nekk na ko njëriñam yoo xam ne doo ko doo ko wàccu liggéey ñu doo ko fii la jaar si waaw ñu wax ne fi la fi la fi la yenoo woon fi la yenni ko fi la yenoo woon fi la yenni ko moom fii waaw moom fii ci barab bi fi la yenoo woon fi la yenni ko waaw fi la yenni ko waate waaw xam ne fii lañ ko waajale yëpp dégg bu mu doog dem fee fa barab ba waaw kon nag yàlla nu yàlla ci barkeem Ah, bàyyi fi barab bi nag barab bi xam ne nii njobootu sëñ Daaru sa Njaay moom ah, ca ndey ca ca sëñ Fallu ca ca ca sëñ Abdu Mballo ba ci sëñ Fallu Njaay ba ci sëñ Bay Fallu Njaay ak sëñ Usmaan Njaay ak njobootam gi ba ci Ibnu Saax ak sëñ Ibnu Rahmaan ñoom ñoo ñoo ñoo yor barab bi xam ne daal lu ñu fi war a def ñoo ko war a ñoo koy def xam ne daal ñoo ko yor di ko saytu ba ba ci ñun ñi ma ci xalifa muy bi ah, xëy na mooy sëñ Abdu Xaadir Njaay mi ma jëkk a tudd moom mooy xalifa moom moom sëñ Usmaan Njaay mooy mooy wajuróom xam sëñ Ousmane Ndiaye nag moom bi sëñ sëñ mu sëñ Bay Faloo di fi xalifa moom moo ci tege moo ci tege woon moom mii moom moom sëñ sëñ sëñ Abdou nag moom mooy xalifa moom mooy xalifaam moom mooy xalifa Daaru Ndiaye Daaru Ndiaye ci xana ndigalam leen fi nekke ak ndigalu sëñ Moustapha Fati mi xay nii moom mooy moom mooy moom mooy jëwriñam moom mooy mooy jëwriñam xëy nii euh, barab bi nag di barab la boo xëy nii euh, sëñ Modou Moussa daana daana wax daana wax ne barab la boo xëy nii képp koo xëy nii euh, ñëw nga fi dugg nga fi ak sell man sell mën ngaa yaakaar ne mën ngaa mu jéggal loolu moom dégg naa sëñ Moussa daana ko wax ne ku dugg ak ak sell suñu borom mën na laa suturaal ci sell mën la mën laa dugal ci ci bàkkaar bàkkaar bàkkaar su mën na laa jéggal say bàkkaar Euh, sëñ Abdoulaat Massa fanaan euh, fanaan fanaan ak sëñ Mbàkke Madina ñaari fan bi mu xëyee mu dugg ci barab bi daal ne barab ba ngi boobu day képp koo xam ne toog nga fi ñaan la nga ñaan boo ko amut nee na nga seet sa bopp yaar te euh, sa passif daa dafa manqué way laa muy lu la jomb waaye ku fi ñaan lu la jombul sa passif a ko matee booy génn génnaale ko barab barab bi daal barab bi xam naa gaal yi fi nekk ay gaal yi tool ci war fanweeri gaal mu ngi fi ak yaar place Sëñ ci nekk waaw këll bi ak lu fi mboolem lu ci biir nii bi mm. lépp Sëñ Tuubaa moo ko moom waaw li suba moo ko moom te it euh, bi mu demee sëñ Moudou Sow Moussa li muy ndawee ndaw te yooyu jamono boobu moom moom moo toppatoo bagaas bi nekk fu ne lu fu dara nekkoon moo moo ko indi ci barab bi lu nekkul njëriñam rek euh, barab moo moo mi ci biir barab bi waaw xam ne sëñ bu Sow moom mu yàlla defal na moom ñu naan ko kamal xam ne dafa mat mat ga mat goo xam ne bis bisu waajuram demee moom moo moo taxawu gannaawam ba dara yàquwut dara yàquwut waaw kon nag ñoo ngi koy siyaare tey ñaan suñu borom defal nu tawféex ñaan di ñaan sëñ Amadou Mokhtar suñu borom yàggal ko fi may ko ak wér mm-hmm. euh, moom nag bi ñu moo yebal see fii yebal see fii ne ko Baye Dame Ndiaye bëgg Bamba mii moom la ñu moom moom moom la ñu bëgg mu yor barab bi mu bëgg euh, sëñ Moustapha wax ko ne ko na ko wax ni nga bëggee mu yoroon barab bi sëñ Moustapha daal di ma wax ci daal sëñ sëñ Amadou Mokhtar euh, daal di ma wax ne ma barab bi day ñi ko jëkkoon yor dañ ko daan ubbi ba nit ñi di fi dugg ba bagage yu bari dañ ko dañ ko luubal luubal dañ ko luubal waaw mun a baga mun a mën a mun a mën a yow nag bu ko ubbil kenn daal di ba ba ma ba mën a bul ko ubbil a bi ma ne ko waaw waaw tout tànk yi ci kër gi nag mun a ma ku fi dikk ku mën di wajuram bu ko ubbi loolu mooy ndigal li ndigal li xam ne moom moom lañ ma jox